ñu ngi nuyu suñu Amadou Mourtada bi nga xam ne moo fekk suñu Mourou Moustapha di suñu am suñu kilifa di nuyu mbooleem suñu mbokk yi ñëpp di siyaare mbooleem suñu mbokk di nuyu ci suñu siyaare Mourou Moustapha di ñu doon mos di leen sant ñun ñëpp di leen gërëm ñëpp nga xam mooy sama tur sama sant yàlla ci tur bii ko tuddee di sama day tey bii muy doon mën yoo xam ne rek kon dama ci seen seen gàtt rek ndax moom daanaka su xel dem rek waaye war nañu moom dara dara seen sa yooyu waaye seen mbiru si laa moom loo ko sa xel dem rek ci taal dañ ko mën a seet doonoon na jëmm joo xam ne ni ko sëñ Abdou Khadre Mbacké daa wax ne sa turandoo lu ñu wax ci moom ci mbaax bàyyi la ko waaw loolu la wax sa turandoo lu wax moom ci mbaax bàyyi la ko noonu la yàlla dundee ko doonoon na koo xam ne boo ko doon mel da ngay wax ne ku fees ko loolu doy na seere guddi falaat bi muy gis nga xam ne li ñu bëggee lii ngeen ko mën a li ngeen ko moom ci mën a lijjanti loolu loolu lépp mën a taw ba ñu mën a indi seen bi ba mën a topp sa lépp ba mu fajal laata loolu ca wax ko ko xam ne jamono ji demee ko boobu da nga xam fees boobu seen mën si waaw ndax ma sama dégg seen la mu ne ma laaj naa ko ko waaw boobu moom loolu noo ko defee noo mu ne ko boobu de damaa xam ne ku gis di ak mag yor naa ko waaye nag damaa damaa xam ne sëñ bi yor ko ma ñëw rek wax lépp daal di daal di jub daal yokk léegi bu ko defee rek nga xam ne kon moom am na lu dajee yoon moom jafe muy bopp fees del ànd ak ak ak ànd ak ñëpp ba si yóbbu man li am lii noonu waaw man gisuma ko ndax damay laaj li nga conseil yi dëkk bi loolu boo yëngu ba mu doon xëy néew na loolu laa ko si ba mu si ndax ba mu doon fi jumaa ji rek ko gën jumaa ji ko xam nga ko am bopp rek yëngu ñim ko fettal rek yëngu ku am sa xel di ko xalaat mu dugal ci mi ma téeméer mel jox ko te booba ab dërëm bu am dem ndax seex yi gën a naw boo leen si mën a Moussa sax muy muy si mën a Moussa Mbaye yoon muy juróomi juróomi jënd la sax yi gën a naw nag boo ko ko doon boo ko ko xam nga ne gis gis ko loolu moo lay tegtal ko fi ba am fi la am xel la ca dolli ko moom mooy ku ku teeyoon la nangoo gisoo daf daa wax ne bu ma juumee ak borom loolu loolu la ndax daa wax ne suñ suñ mur sa balaa dana waaye seen waaye dana wax ak suñu Omar ak Mbacke Diarra suñ bay jaxate suñ lay jóg leew naag mag ñu noonu nga leen topp bañ doon tudd gudd wax na ku ne dana la wax ne waaw diw sànga bi laa ma faat xam yoon wax bi sax faat bu ñëw ñëpp dajee xale yooyu mujj suñ bis ne ko yow lu ciy sax faat diw li doon la wax nag waaye diw di waaye yow li nga wax rek laaj laaj laaj laaj paradoxe loolu tax am yàlla dimbali ba ba ba di jur ma xam ne am lool te mën a te mën a am xëy man nga wax lool bokk na ci xikam yi daa am na ci mën danaa wax ne nit nit bu la fekke yëmaliwu ko ñëpp waaye sa bopp la seetlu la loolu daa wax ne nit bu la bëggee nan an dégg naa ci seen gàtt mu ne suñu musaa mos na ko wax yàq yàq maa ngi koy déglu mu ne ko yàq mu ne ko bu la kilifa tegee leen tegee leen wax naka war ko nekk ci yàq mbootam mu génnee